ayca waaw ayca sëñ bi auzu billaahi min sheytaani rajim bismillaahi rahmaani rahim ñi ngi nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan ak fu ñu mën la ñu nekk walla ñu nekk bitti di nuyu itam suñ mbokk yi nga xam ne ñooy jàllale suñ kàddu yi jiital ci uh, waa Louga TV di leen sant di leen gërëm eh, di seen Abdoulaye Lo ak eh, sëriñ Mbàkke Mbóoj wala boog ki ko bokkal ak ñoom ñi aju ci télé bi yëpp ak ñi seetaan yëpp ñu ngi leen di nuyu di continuer nag ci téere bi rek waalamu annama ghanimtum min cheyin fa anna lillaahi xumusa muy wax nag li nga xam ni moom la ñu jëlee ci geer bi bu geer amee ba ñu jëlee ca alal ja nañ la alal ja war a doxe laajoon nañ ko fële ca commencement ba saaba yi laajoon nañ ko yenente bi ma ngi koy détaillé mi ngi koy àggale mu ni waa la moo xam leen ni annama xanimtum nag lépp loo xam ne màng ngeen ko jële ngeen ko ci yéefar yi min shay'in laalul moom lu mu lu mu tuuti tuuti min shay'in tanwiinu taqlil ñen ñi jàng grammaire min shay'in lu mu tuuti tuuti laala moom tuuti tuuti fa xumu xumusahoo naka juróomeel ba lillaay ñeel na yàlla yàlla moo ciy digle lu ko neex nag wali rasuuli ak yeneen tàmb wali sil xurba ak ñeelitam boroom jege ñaale ba ñu jege ñaale yonent bi moo xam ngir bani Hashim la wala ngir bani ngir bani Muttalib ñooñu ñoom lañ koy seddale wal yataama ak jirim ya wal kiine ak miskin ya wam ni sabila ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci tukki boo xam ni du tukki mooy in dem nekk ngeen amantum diggam billaahi ci yàlla su dee gëm ngeen yàlla daal noonu ngeen ko war a doxale yéen ñiy liir di gëstu diggante bi bu ngeen liiree tafsinul xaasin da ngeen ca fekk ay détails yu bare lool lool lool lool da ngeen ko ca fekk bu ngeen yëree ruuxul bayaan itam da ngeen ca fekk lu bare lool waaye surtout nag tafsirul xaasin in kuntum dem nekk ngeen amantum diggam billaahi ci yàlla wama ak bu dee gëmaale ngeen la nga xam ne ansal naa wàcce nañ ko ala dinaa ci sunu yonent bi di Muhammad sallallahu alayhi ci alquran ak yu demee noonu yowmal furqaani muy nag ngeen jële ko ca bisu teqalikoo ba bisu teqalikoo ba mooy bis bi nga xam ne dafa teqatle leeral dëgg ba mu leer leeral niin ba mu leer te mooy bisu badar ba bis boobu bu ngeen ko xamul yow ma mooy bis ba nga xam ne iltaqaa tampoona aljamaani ñaari mbooloo ya muy mbooloom jullit yi ak mbooloom yéefar yi wallaahu yàlla xadiirun aji man la aji àttan la aji dogal la ala kulli shay'in ci lépp lu mën a doon yàlla tërewul dara kon loo ko teg rek bu sottiwul ci yow la yàlla loo ko teg bu sottiwul ci yow la waaye moom tëlewul dara wa tuddal ci alxuraan is jamono ba nga xam ni tuddal ci alxuraan is jamono ba nga xam ne antum yi mbir mum yéen jullit ñi bil odduwati yéen nga ci tund wa tund wa addunyaa ba daa ji jege madinatu munawara waxum ñoom mbir mum ñoom yéefari bil odduwati ña nga ca beneen montagne ba alxuswaa ba daa ji sore wa rakk bu te mbir mum garaw yi nga xam ne jëgg ji nga xam ne moom la Abu Sufyaan àndal asfala ñoo gën a suufe minkum ci yéen ña nga ca booru géej ga waaye wala tawaatum bu ngeen dëlante woon yéen ak mbooloo moomi nga xam ne ñoo yor ngànnaay bu ngeen diggante woon xeex ba lax talaftum da ngeen wuute filmi aadi ci digg ba dat bi dana weesu waaye gis nga yàlla moo ko organisé noonu du yéen a ko organisé noonu xeex bi wala walakin li fi nekk nag sunu boroom dajaleel na leen te joxantewu leen rendez li yàq di ya ngir na jeexal na àtte allahu yàlla am ren mbir moo xam kaana nekk na ma olan di mbir mu ñu nam ma def li mu nam ma def rek na ko loolu la bëgg a def te mooy tasaare lislaam dimbali ko li yahlika yàlla def na bi xare boobu am ngir na faatu ngir na alku man ka nga halaka alku na an bayinatin ci leer lay yu leer naññ na alku dee ci lu leer naññ te mooy yéefar yi wayax yaxyaa na dund na gëm na gëm li ngir na weddi man ka nga xam ne halaka weddi an bayinatin ci anam bu leer naññ wa yaxyaa gëm man ka nga dafa gëm an bayinatin ci eh, anam ak i leeral yu leer nañ ndax inna allah naka yàlla la samiyoon giñ naa ni déggaakoon la ay waxi gaa yi wax alimun xamaakoon la jëfu ñuy jëf mm-hmm. yeneen tamit géntoon benn gént yàlla di ko nettali mu ni nag tuddal ci alxuraan is jamono ba nga xam ne yurika humu wan na leen yéen leen ci bee génn allahu yàlla la kañ la fii manaamika ci sa biiri nelaw xaliilan lu néew maanaam ñoom yàlla wan na yonent bi ni ko ñii ngay dajal ci gént day ci gént la ko yàlla wan ni ko yéefar yi nga nar a dajeel nar a xeex ak ñoom xalilan lim bu néew lañu yonent bi jël xibaar boobu ni ko ni gént naa de ñi ñuy dajeel duñu nekk lim bu am doole duñu nekk lim bu bare yàlla ne yonent bi yéen fàttalikoonu leen loolu yàlla ni walaw araakahum bu leen wonoon ci gént kasiiran mbirum nekkam ñuy lim bu bare la fashiltum kon da ngeen yonjax da ngeen ragal xam nga lim bu néew bi yeneen bi gént wax ko ñële moo tax ñu am courage ku ma dégg ngeen wax ci xaw ma ñu ne ah yeneen moom lu mu gént noonu lay amee waaw comme lu mu gis noona la lu mu wax noona la kon lu tax ñee bare mu wan ko muy lu tuuti parce que ba jëf ja ñëwee xam nañ ni barewuñ lim géntaan nent bi gént ñu nekk lim bu néew mu nettali ko saxaaba yi ñu am courage takk seeni fit gën a am dagg dayo ak dogu pour war a mën a xeexee yéefari ci Badar yàlla nag walla araakahum bu doon da na woon ci gént kathiiran mbirum nekkam ñuy ñi ngeen war a xeexal di noonu ñuy lim bu bare la fashiltum kon da ngeen yoon njax de da ragal te itam wala tanaasatum giñ naa ni itam da ngeen wuute da xëccoo fil amri ci mbirum xeexi ñii daan nan xeexi ñii bu ñu xeexi comme lim bi gént nga ko mu bare rek fokk mu am détail ñii nañu xeexi ñii ni bu ñu xeexi fokk mu am ci naa ni comprendre ngir ñi seetaan daañu comprendre walakin li fi nekk nag yàlla walakin allah yàlla moomu nag nga xam ni moo leen jox ndigal li sàllama moo leen musal sàllama kum rek la bëgg nga indaale ko ca firima sàllama moo leen musal ba tiitu leen ngir gis lim bu bare werantewu leen itam ci xeex ak bañ a xeexi ndax lim bu tuuti bi ngeen gént kenn amu ci looy xel yaar comme bi génn na mu tuuti rek amu leen benn détail yéen ñëpp a d'accord mhm. innahu naka moom sunu boroom alimun xamaakoon la ku xam la bi daati suduuri li nekk ci seen biir xol yi xam na ko leer na ko ni bu leen lim bu bare ngeen tiit dana ci am ñu déconné ni bu ñu demee dañuy rey dana ci am ñu jënd feebar dana ci am ñu tukki am ci ñu dem feneen bañ xeex waaye ndekee mu wan yonent bi ñuy lim bu tuuti mu wax leen ko rek yéen ñépp ci ngeen d'accord nekk benn te bu neexoon yàlla nag mu wan leen lële di alim bi saati sudur war tuddal ci alquran is jamono ba nga xam ni yuriikumuhumoo wan nan leen yéen jullit ñi isil taqaytum waxtu wa ngeen di namma dajeeg yéefar ca xeexukaay ba fii ayunikum ñu wan leen ci seen jëmm yéen seen jëmm xalilan mbirum nekk muy lim bu tuuti ñoom ñi ngeen di dajal bi ngeen jàkkaarloog ñoom te dajeegu leen ak ñoom dafa dafa confirmer li yonent bi géntoon dangeen leen a gis daal ñoom ñu nekk lim bu tuuti ci gis-gis mel na juróom-ñaar fukk wala téeméer fekk ñu junni lañ yàlla lu tax mu wan leen loolu mooy bu yonent bi géntoon lee wax leen ko ngeen jàpp ni lim bu tuuti na ñu tëll ci seen kanam rek fekk ñu ma junni nit man ngeen a tiit ragal arrière waaye yàlla da leen a yor ndànk rek wan leen ñee nekk lim bu tuuti ngeen jàkkaarloo am ah, li li sang bi gëntoon am wayu xallilu kum ñu néewalal leen lim ba ngeen war a dajeel fii ayunihim ci seeni bët ñoom <laughs> maanaam ñoom itam bi ñuy daje si ak yéen ñi ngi jàpp courage ñi ñii ñuy daje lim bu tuuti bi ñii de bu ñu àggee ci ñoom duñ doy yalla ko defé non ngir bëgg ñoom itam ñu gëna sawar ba ñëw ba yalla yàllaa ko defee noonu bëgg ñoom itam ñu xol julli ji ni mu yé lepp tuuti bi ñi dafu ñen fekk du doy lan mo tax yalla won leen yeen ñe di limbu tuuti ci gis-gis ba paré ñuy junni ñe itam yalla won leen yeen ngeen di limbu tuuté tuuti ba tax ñu gën a sawar daje ci lu tax yàlla def yoolu loolu mooy li yàq dia ngir na nam ma dogal allaahu yàlla amran mbir moo xam kaana nekk na ma oolan di bu mu war a dogal yàlla dafa bëgg dogal li mu bëgg a dogal te mooy duma jullit yi duma yéefar yi benn yoon rey leen jàpp ci ñoom watur jaaw def na delloo al umuru mbir yépp ila ci sunu boroom kon loolu dafay daal di nekk naay bu faayil al umuru day nekk naay bu faayil waaye boo ne wa jeexu wa tarjeexu dana dellu ngay wax al umuru mbir yépp dootul nekk naay bu faayil faayil lay doon bu ci nekk mën naa nekk wa tur jeexu wa tur jeexu tarji'u dana delu al umur fay lay don mbir yep dana ila ilalaay ci yalla wala nga ne wa turja'u na al umur mbir ila ilalaay ci sunu borom moo atti yalla ni nak nag yaa lazina amanu e yéen gañ nga xamni ni ngeen ma ida laqiitum ndeem daje ngeen yéen jullit ñi fi a tan kuréelub yéefër baatu fi a fi a tan maanaam ismu jam'in la ismul jam'i la amul mufrat amul tasniya amul dara fi baatu fi a is laqiitum waxtu ba ngeen daje fi a tan kuréelub yéefër nee na isaa làqaytum bokk ndem daje ngeen fi atan kuréel bu yéefar mboolem yé mbooloom yéefar fas ba tuu fas bu tóo na ngeen sax ci xeex ak ñoom waaye bu leen leen wan gannaaw bu leen leen daw waskuro na ngeen tudd bu baax na ngeen woo allah yàlla kasiiran lu bare lool na ngeen sàkku ndimbal ci sunu borom su ko defee laalakum ci dëgg-dëgg yéen tufle def na texe leen da ngeen texe ëllëg baatu laala nee leen bu jëmee ci nit yaakaar la bu jëmee ci yàlla dëgg la taxqiq la bu dee yàllaa ko wax jógee ci sunu borom taxqiq la wa aatoon ngeen topp allah yàlla watta ngeen roy rasulahu yeneen tamba wala tanaazao bu leen xëccoo bu leen wuute ci nekk ci seen diggante fa su ngeen juuyoo ci kàddu juuyoo ci ay jëf juuyoo ci ay bëgg-bëgg tafshalu kon da ngeen yonjax da ngeen ragal da ngeen sungen su ngeen juyo ci ay kaddu juyo ci ay xalaat juyo ci ay bëgg-bëgg kon day tafshalo da ngeen yonjax wa tazhabata dana dem itam dana jeex tak rihukum sen katan gis nga même gouvernement sax su bëggee folleku soo gisee ñi ko seere commencé am ay détails gouvernement boobu deel xool wate yi nekk ci kanamam daf koy ñàkk wate yi nekk ci kanamam daf koy ñàkk kii nekk na isin benn tali kii nekk Louga kii nekk barab sangam ki nekk feneen ñoom ñépp ñu bokk parti te parti boobu moo gañe réew mi yor ko nga gis ci seen biir liggéey ñu juuyoo bokkuñu ay xalaat bokkuñu ay bëgg-bëgg kenn ku ne di sànni xeer sa moroom deel xool su watee ca topp da dañuy daanu dañuy perte su fekkee njiiti diine yi danoo dem ba mujj yàgg waxuñu nag ñu juyee ci ay masala ak yi loolu moom fi lañ ko fekk te fi lañ koy ba ndax sharia ñetti téeméeri sharia la ak juróom benn fukk benn bi sax maîtriser wuñ ko Mhm. moo tax weddi gu bare baaxul diingat gu bare baaxul ndax benn nitu yàlla ci sun nitu yàlla yi nee na man lam yu bi jumlati sharia inkaaruhu li mahlakin sharia fa innahu jaa jaa ala sittina baada salaasa miatin tuftina ñetti téeméeri sharia ak juróom benn fukk moo am te benn bi sax maîtriser guñ ko kon juuyoo bu bare bi matu ko nga des kilifa diine yooyu su baree lu ñuy juuyoo bare lu ñuy euh, wute ci ay xalaat ak wax ak jëf diine bi da ngay daal di yëg ci seen côté ni muy feebale kon wàllu àddina bëggul juuyoo li ma bëgg a wax wàllu yàlla itam bëggul juuyoo dafa bëgg àndandoo booloo nekk benn dem na ba ci kilifa yi diine yi nga gis ni juuyoo bi nga xam ne léeg mooy am ci seen biir dafa am tuuti benn porte bu muy ubbi bu nu ñenn ñi di wàll ji yabe ci wàllu islaam te fekk ñoom ne ku nekk sa gis-gis dafa am benn waay boo xam ni ñëpp dañoo ma ñëpp dañoo woor moom mu wari moom dong génn ci télé bi nii kilifa diini yi dañoo war a bàyyi juyoo ma ne moom day dañoo war a bàyyi juyoo teqale ko comme moom dong moo wari boppam lay wax Dakar la dëkk mu génn di wax ma gis ko nii moom dong mu ware te bare na koo xam ne ju mi ngi indi juuyoo ci diine bëgg cër a ko ko jox parce que bu cër yëpp nekkee benn baat yëpp nekk benn xam na ni moom ci ñuy déglu lay bokk léegi nag bu mu bëgg créer baatu boppam ñu koy déglu moom day jar mu wut yoonu boppam day jar mu wut yoonu boppam bu wutee yoonu boppam pourtant am na ci ñu mu ciy xëcc te ñëm ci xëcc moom njiit la cay doon loo xam ne dañ ko ciy déglu te moom bu leen ci xëccee bañ di ñëw ñu ko ciy déglu ñeneen ñi nekk njiit ci wàllu lislaam ñooñu lay contre ne sëriñ amul njiit amul leneen amul te moom pourtant ñi muy bu ñëwee njiit lay doon moom te ñële it njiit lañ am def ko sëriñ di ko déglu muy mbir moo xam ni bu nu ñu ci nax gis naa sax ñenn ñoo xam ni dañ leen ciy tafu léeg-léeg gis leen di leen euh, ay sëriñ amul fii ay nangam nangam ki la koy wax bis boo ko wuyoo sa moroom wuyu ko keneen wuyu ko sëriñ lay doon jiyéen na la demal wuyu ko rek bala ngaa defati dara day wax de même kor yi day wax ngeen door a wari tabaske noonu yépp noonu yàlla moo def be wut sa wut sa baat ci diine bu juuyoowul ak li diine soxla dafay mën a nekk waye nang ko man neena ben way li sonal nit ñi ci jamono moy bayyi toppe te jotul ak wo ko la top te jotul bo bayé toppe te jotul wut ñu la top te jotul ñaar ñoñu di kenn rek lañu ndax bëgg cër la moy lu yaq ci diiné buñ koy sét famu yaqoon nañ la jëli indi motax diine fi ne boo def xabdu wala ngay def ki ba dem ci ñoo xam ne dañuy def saddulu normalement xabdu boobu nga doon def da nga koo war a bàyyi nga def saddulu comme ñi ngay jullandoo dañuy def saddulu sooy def saddulu ba dem ci ñi nga xam dañuy def xabdu dangaa war a def xabdu parce que détail bi nekkul foofu ndax lan loolu l'islam lépp lim ci jublu mooy bañ rek juyoo bañ rek réeroo bañ rek ak jaxasoo bañ rek werante kon aaya bi yaatu na mu ni daal wala tanaza'u bu leen xëccoo bu leen wuute doonte fëlee taxun ci ñun rekk la fa tafsaloo su ko defee da ngeen yoon njax su ko defee wata zaba daa di dem riixukum seen kattan xam nga nu ngeen di def wasbiru muñ leen inna allaha naka yàlla ma sabirina ndimbalam andana goy e yi muñ li tax mu ni muñ moy li la nara taxa beru pour di di wérante njit la nga ca soxla ba nar ca xëtti nit ba nara indi juyo muñal muñal bëgg njit goge nga dem topé ci lepp lo xamni wérante amul lu mi yak ci diine amul lum cey defar jëlul di werante jëlul di werante su dee ci julli la dangay xabdu da ngay saddu da ngay yëkkati say loxo ci kaw taf sa dënn da ngay yor mais amul détail yow kay dangay dem rek nga jéem a wax ñu dul julli nga seet ñu jullee ñu daal nga amal affaire woor naa bis bi wori naa bis bi coow lu bari li matu ko ci woor naa bis bi woor naa bi woor naa bi matu ko yow nit ki waroo ko forcé ci ne weer wi dafa feeñ weer wi feeñ na waaye fors force danga war a gëm ci ki mu feeñe waaw yow itam waroo toog fenn am benn rëy ak benn détail boo xam ni am na ci sa biir boo xam ni yow weer for force daa war a am côté bu mu feeñe nga dooru koo gëm am na côté boo xam ne bu fa feeñee doo ko gëm yow itam waroo mel noonu kon fokk ñële ni jóge fa ñu nekk dox ñii itam jóge fi ñu nekk ndox ñu tasee ci terrain te itam ñu bañ jàpp ni ñu bañ ñu bàyyi ci ci ni jamono bu nekk rek seenu bu njëkk daa war a feeñ waaw ci ay nit rek lay nekk da ngay gis ay nit yoo xam ne data yoo xam ne bis bu set maanaam weer wi fu mu feeñee fu ñu séenoo séenu bu njëkk rek daa war a am fu mu feeñ toujours ñooñu rek ñooy def déclaration ni weer yi feeñ na barab sàngam feeñ na barab sàngam feeñ na barab sàngam ñoom doo nga yor détail yooyu dañu war a jóge foofu am na ci ñoo xam ne itam lii seen détail mooy jamono bu nekk ñoom toujours li ñu tàmm mooy ña ñaareelu séenu ñaareelu si si maam bis bu njëkk bi beneen bis bi toujours ci la weeri war a feeñ ñoom itam loolu xam nañ leen ci dañoo war a jóge foofu mooy est bu doon ki nga ki nga xam ne séenu bu njëkk toujours weer ci moom lay feeñe bu doon dafa am benn jour mu bañ sax nit ñi daan rafet njort ci ni kii li mu nekk dëgg la waaye toujours ci yow lay feeñe toujours yow yaay dénoncé ni weeri feeñ bis bu njëkk bi yaa koy dénoncé yaa ciy wax ci yow dong ak sa kuréel boobu ñii bañ ñoom itam bis bu set ñoom ñooy bañ kon nga xam ne affaire bi bakkanañ ci du doxe noonu ci ni du doxe noonu kenn ku nekk na jóge fi mu nekk rek ñu dox tase ki naan feeñ na ci feeñ seenu bu njëkk bi mën naa wax war naa mën a wax dëkk war nañ koo mën a gëm mais bu yàggee moom itam ki nga xamante ni bii nee na feeñul gisuñu ko ba teemu woor war nañ koo mën a gëm te ñoom ñaar suñu toogee waxtaan rek daañu bokk kenn ku ne gëm sa morom mbir mi nekk benn wala takunu yàlla ne bu leen nekk aaya jii nu jëm nag li tax mu wàcc mooy abu jahlin ak ñi àndoon ak ñoom ci gàttal ñoom dañoo wax ni ñun duñu arrière duñu daw duñu dellu maddi màkk mukk lu dul dañoo dem ba àgg badar xeex ak yonent bi gañe ko toog fa nag bu nu àggee badar dañuy naan sunu sàngara di loj ci gëléem yi gëléem yi di togg di lekk di lakk di lekk di dóor junjung yi ñu ni bàkkal jeeg-jeeg jànq ji di nu way ba ñu xam ñun ñooy ñan duñu arrière mukk ndekete yoo ñoom daal naan sàngara ga ñu doon lépp ni buñ demee Badar moom lañuy def mujj nañ wax dëgg waaye sàngara sa mooy kaasu dee moom lañ naan lu mu doon lu nekk rek yàlla remplacé na leen ko fa jox leen fa safaan bi mu ne nag yéen ñi xeex yéen jullit ñi bu leen am pas-pas boobu wala takoonoo bu leen nekk kat lazina mel na kàccooree nga xam ne xarajoo génn nañu min mu jóge ci seen kër ya bataran mbirum nekkam ñuy ñuy ségaréwu ware a annaasi segere mooy di tiitaru di rëy ware a annaasi ak wan nit ñuy ngistal ci nit ñi waya su ñuy dëdduloo nit ñi an sabilillahi wëlif yoon sunu borom te wallaahu yàlla mu xiitun aji peeg la ba mu daj kapp ci xam bi maa ca la nga koy jëf ñoom wa tuddal ci alquran is jamono ba nga xam ni sayana dafa rafetal lahum ñeel yéefari ay saytaanu iblis lan la rafetal amaaluhum seen jëf ya da leen a jox courage wa qaala mu wax ni moom iblis daa di wax ñan la waxal yéefari kañ la ca bisu xare ba neen laa xaali ba jéet jenn aju not lakum ñi leen al yow ma tey mina naas ci nit ñi waaw kenn seen tata bi mbooloo mii ngeen mel nii ak nii ngeen toll Ken ken ken ken munu leena gagné tay ah ndax bisu badar iblis dafa ñew aka bare pex ñew geetaru takku ba andak ay soldaram yu dul jeex melokan wi mu yor suraqatum ni malik melokanam la yor ñew ci yeufari ni len xam ngeen ma man man maay suraaxa nit ñi gis ko dëggal ko ci njàmbaaram ak tolluwaayam mun leen tey kenn du leen not ndax jekk ngeen man jekk naa pour ànd ak yéen pour jàppale leen wa inni naka man xam nu xamuñu ni iblis dafa soppeeku melaw suraaxatum nu mu ni wa inni naka man jaarun aje dimbali laa làkkum ñeel leen waaye xam nga nu mu defa falam maatara ati ba nga xamee ni janoona jàmmaarloo na alfi ataan ñaari kuréel la te jullit ñi ak yéefar yi mu gis malaaka yi mhm. dafa dellu ala àq bay ca gannaaw fu mu jóge woon daw taxaw fële waxaalam wax moom ni inni eey eh, yéen yéefar man mii kat bari un ku dañ laa ku génn laa minkum ci seen mbooloo xeexatuma kat gis ngeen courage bi mu leen defoon bi mu leen joxoon ñoom ñu gën a jàpp courage xoolal dem ba jaakaarloog nit yaakaarloo ko mu yaakaar nga defee da nga koy jàppale ba jàkkaarloog sam noonu muy entraîné ci sa kanam di daw di bot ci jaaseem ak ñi mu àndal di yëngal di bàkku xam nga dangay jàpp courage ba dara desul lu dul tampon mu laa sa waay man kan man xeexatu moom noonu la leen def xam nga lu mu def laye te muy dëgg dañu indi naka man araa gis naa maa loo xam ni laa taraw na gisu leen ko mooy malaaka yi wàcc nee na gis na leen te ñoom yéefar yi yëguñu ne ay malaakaa ngi wàcc inni naka man nag li tax may dem maag sama gars yi a xaafu ragal naa allah yàlla damaa bañ yàlla alak ma wallaay ndigal ma ñëw dem ndax wallaahu yàlla shadidul iqaabi ku tar ay mbugal la ku tar nu muy dumaa nit la tuddal ci alquran yow yenent bi nettali jamono ba nga xam ne yàquulu wax na almunaafiquuna naafiq yi wala ziina ak gaañ a nga xam ne fii xuloo bi mu nekk na nee naa leen na ñetti kuréel yi nita am jullit yéefar naafiq naafiq bi mooy ke wane ni gëm na def ci suuf lu wane ni gëmul lu gaa dul yëg is yàqulu waxtu wa waxe almunaafiquuna naafiq yi wala nga xam ne fii xuloo na ci seen biir xol ya maradun feebar ne xarra xarra warna ha haulaay julit ñi war na leen diinuhum seen diine ja ndax génn gi ñu war a génn dem di xeexi ci jàkkaarloo mbooloo mu bare nii seen xel dalatul ñoom naafiqi ak ñi nga xam ne seen xol dafa amuk ragal ya ñii de tey seen diine ji war na leen ñii de buñ dajeeg ñoom duñ ci génn waaye yàlla ne wa man tawakkal ku sukkandiku àllallaay ci yàlla yow yaay nodda loo mën a wuti koo mën a dajeel boo sukkandikoo ci yàlla rek da nga am ndam moo kuy wuti dara da ngay ànd ak dogu ak fit akum xel sukkandiku ci yàlla gannaaw ba nga sukkandikoo ci yàlla laay wax wutal fit amal dogu akum xel ñett yi lu waay di wuti yóbbaale ko da nga indi loola waaye ñett looy wuti te àndoog ñett yi àndoog ñoom bu ca benn desee booy ba nga noppul la ngay wuti doo ko fi indi dangay am fit am xel ànd akuk dogu door a dem bu loolu amul rek la ngay wuti doo ko indi de fekk na nga sukkandiku ci yàlla bu dëgër waaye na laa naka yàlla asiisun ko not la xakiimun ko xereñ ci lu muy jëfe la wala taraa bu doon da ngaa gis yow yeneen bi is jamono ma nga xam yata wafa bu la neexee nga ni yata bu la neexee nga ni tata wafa ma ngay faat almalaayikatu malaaka yi ñan lañuy faat àll si na gaaña nga xam ne kafaro weddi nañu boo gisoon na malaaka yi doon rey yéefar yi kon danga nga bisu badar moo tax mu ne ko walla taraa bu doon dangaa jànnoo ak yow yeneen bi bu doon dangaa gis is jamono ba nga xam ni yatawa faa ma ngay faat ma ngay rey almalaikatu malaaka yi allasiina yéefar gaa yi nga xam ne kafaroo weddi nañu bu doon dangaa gis yadri boona ñoom ñuy dóor wujjoom seen xar kanam ya wa at baarahum ak seen gannaaw ya ci bolde yi malaaka yi yor di leen ko dóor keroog danga nga yéemu de wa keroog daal malaaka yi ña ngay wax yéefari naan leen sooxoo mos leen asaabal xariiqi mbugal mu lakk mu tàng ma su doon danga leen a gis danga gis keroog mbir mu réy réy saalika duma yooyu ñu leen di duma ak mbugal mu metti moomu bi ma dafa nekk di fayuk la nga xam ni xaddamat jiital na ko ay di kum sen ya sen jëmm ya sen sen sen cër ya ndax lu tax mu ne ay kum ay di kum sen ya moy lu bare lo xani ni cërëng koy def doomu ada mi min koy def lu gëna bare loxo ba da ci am yoon satte bi su doxé tankam ba ag loxo bi jël ki dem di addu kalpe ji su doxé tankam ba ag loxo bi dur kiy def leneen bu demee ba àgg loxo bi dana jëf loxo moom amul lu mu ca mucc mooy mooy participer ci yépp looloo tax na mu tudd ko yóbbaalee ci des yépp bi maa qaddamat ay diikum wa anna allah naka yàlla laysa bi zallaamin diit muy tooñaakoon lil abidi ñeel jaam yi ba di leen mbugal te defuñu lu ko jar mbugal moomu nag kat bi aali firawna dafa mel na aaday ñuñ firawna ña wala si na gaañ a nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon ñoom ñoom kafaroo bi ayati lay ci tv ci yalla yi fa akhasum dal len di mbugal Allah yalla bi bihim ci sen sababu bàkkaar ye kon bakar yu bare day waral mbugal mu metti ben way kat neena wa fardun ala naasi an yatubu, lakin tarku dunoobi aw jabu tuub bàkkaar farata la ci nit ñi waye baña def bakar mo gëna nek farata te itam safara kenn du fa dem ngir bàkkaar waaye xeeb bàkkaar mooy yóbbu nit safara xeeb bàkkaar xeeb xeeb bàkkaar mooy yóbbu nit safara lépp nag ci dogalu sunu borom fa axasahumullah bi zunubihim inna allah naka yàlla xawiyun aji dëgër la ci lépp lu mu bëgg a def da koy def shadidul iqaabi ku tar mbugal la saalika mbugal moomu yàlla di mbugal yéefar yi ak ñu mel na ñoom bi an na laaxa naka yàlla moom lam yakku nekkul lam yakku waxul lam yakkun lam ya moo fi nekkoon ñaari masque néeg yi daje diis mu daldi di xasaf genn genn ar benn araf ba nga xam ne moo am maas ak néeg gi muy waaw mu des lam yakun ba tey mu ñëwaat bëgg mu gën a oyof mu asaf beneen nuun ba ni lam yakku kon mooy yàlla daal lam yakku nekkul mu xayiran di soppi nii matan xéewal anaamaha goo xam xéewal na ko alaa xamin ci nit xataa yu xayiroo bañ soppee ñoom maa la nga xam bi an fusim nekk na ci seen bopp yàlla boo fekkee danga regg lool mu remplacer fi ab xiif yaa def la ko waral boo boo dee solu ba ni jàgg am lépp mu jekk ba yàgg nga rafle lool yaa def la ko waral soo dee am ba yàgg nga ñàkk doonte yàllaay dogal léppit yaa def la ko waral boo dee xam ba yàgg xamatoo yaa def la ko waral ndax bakar yu bare day raxas xam-xam ci xel bo beugé sa xam-xam wañéku del bare ay bakar, légui sa xam-xam wañéku boy bare loy jëw légui sa lamiñ dootul wax xam-xam bu jub bo bare loy xol sa beut ci bakar luy waral bakar légui sa beut dootul déggu alcorane day waral ngay fàtte bàkkaar day waral fàtte liir tablo yi ci bàmmeel yi day waral fàtte gis bàmmeel yi ngay liir tablo bi fii kanawaay ku ñu bind fii fii day diw lañ fii suul diw lañu bind di liir tablo yi day waral fàtte kon daal yàlla saa yu la joxee xéewal ba yàgg mu jël xéewal ga amul benn sens mu koy def mi ngi noonu ni yàlla daal du wàccee xéwal ba yàgg mu jël ko ci aw nit xattaa yu xayroo ndare bu danoo ba ñu soppee boog ba ñu saasee xanaa maa comportement ba nga xam bi an fusihim nekk na seen bopp nay taw rekk mbay yépp yu ñor ba ñu beew ba dëkk ci bàkkaar léegi muy taw loo xam ne day ñoral rek lu xar yeeg bëy yi war a lekk balaa mu àgg ci lu nit ñi war a lekk mu arrêté taw ba bàkkaar yaa tax waa na laa naka yàlla sàmmiwun déggaakoon la li yi wax alimun xamaakoon la li yi jëf kaddaa bi ali firawna dafa mel na rek aaday gaa yi ñuñ firawna ya wala si naag ña nga xam min xablim ñoo leen jiitu kasa boo weddi woon nañu bi ayaati rabbihim ci kaaw téefi seen borom yi te ko dee fa alak naahum ñu alak leen bi sunoo bihim ci seen sababu bàkkaar boobee ñu def wa axrax naa ñu labal ñun yàlla ala aala firawna ñun firawna ña wa kullun ku mu doon te ñañu rey ñañu labal ñañu mbugal ak façon mbugal bu mën a doon kaanoo nekk nañu zaalimina di way weddi yàlla akub yonentam bu mu yónni ci ñoom moo waral mbugal moomee ko defee loolu ñu xamee ko noonu am na nag ñu ne aay bi nu jëm mi ngi wàcce ci juróom-ñaari kuréel yu bokk ci yahuut yi mu ne inna charra dawaa bi naka ñi ñi yées ci ñuy dukkat ci suuf ñiy dox ci suuf ñi ci yées indallaayi fa yàlla allazina mooy gaañ a nga xam ni kafaroo weddi nañu fahum te mbir mum ñoom laa yuminoona duñu gëmmu gëmuñu ñi yées ci suuf ñi ci kaw suuf ñi ci yées gën cee bon yàlla gën ne wàcce sànjaam ci ñoom mooy ñi nga xam ne ñi ngi dox ci kaw suuf ba pare gëmuñu yàlla ndax lan dañoo bare lu ñu gis waroon caa gëme yàlla ci xéewal yu leen yàlla defal ak safaan yu ñu gis yàlla def ko ñi gëmul woon kon bu ñu waaroowul ci bu ñu gëmul yàlla ci gis xéewal yi yàlla di joxe ñu gëm ko ci wa yi gëmuñu ko yéemuwuñu waaruwuñu itam ci mbugal mi yàlla di mbugal ñu ko weddi ñu ragal ko gëm ko ci kon ñoo ñoo yées waaye kon bi mu la waxee ñi yées wax na lañuy waxaale na la ñu gën kon ñi gën ci yàlla mooy ñi nga xam ni ñuy dox ci kaw suuf ñi ci gën ñi ci gënal yàlla laa wax de mooy ñi nga xam ni gëm nañu ñoom weddi wuñ yàlla dañ koo gëm ba pare di ko pratiquer kon ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoo gën ci kaw suuf doy na waar de naa daal doy na waar moo tax daal inna sarra dawaaba inda inna sarra dawaabi inda allahi allazina kafaru fahum laa yuminuuna allazina mooy gaañe nga xam ne a atta kóllërante nga minum ci ñoom dafa am ñu yonent bi jàppante woon ñoom kóllëre ni ñoom du ñu xeex ak yonent bi yonent bi du xeex ak ñoom ñu fasante ko wóllëre su ma yanqudoona ñu firi aadoom seen kóllëre googu fii kulli maratin ci yoon wu ñu daje yonente bi rek wane nañ fa lu feet ci kóllëre waxum te mbir mu ñoom laaya taqoo na ragaluñu dara ci yàlla ci wor ga ñuy war yonente bi fa imma tasqafannahum boo leen fekkee fil xar bi ca xeex ba fa shari teqaleel bihim ci ñoom man ak ña nga xam ne foom nekk nañ seen gannaaw laalum ndax ñoom ya zàkkaroo nañu waaru wa imma taqaafan na ndeem dangaa ragal yow yenent bi xaw min ci nit ñoo xam danga wëllërante ñoom nga ragal ci ñoom xiyaanatan ak wor fan bi sànnil ilayhim ci ñoom ala sawaayin ci yamale sànni leen fële ina laa naka yàlla laa yuhibbu du yoolal du fay mukk alxaa na workat yi am na fu mu waxee na laa laa di kaydal xaa na Hmm. wala yasibanna bu jortoo yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ala si xani kafaroo weddi nañu lu ngeen teg sabaxoo jiitu nañu innoom naka ñoom laa yon ji sóona yàlla nee na ñooñu rawuñu wa oydoo parapar delloo parapare leen lahum ñeel leen pour xeex ak ñoom mastataatum lu ngeen man min xuwatin ci kàttan wa min ribaatil xayli ak ci takk fas yi xeex ñoom su ko defee turu hiboona ngeen ragal loolu leen bi ci moom addu wallaahi noonu yàlla wa adduwakum ak seen noonu yéen te mooy yéefari màkka wa axarina ak ñeneen ña nga xam ne min doonim ña nga seen gannaaw maanaam naafiq yi ak yahudi laa taalamuuna humu noom xamal leen allahu yàlla yaalamuhum moom xam na leen wamaa yunfiqu wamaa tunfiqoo la nga xam ne dangeen ko lépp lu ngeen dépassé bokk wamaa tunfiqoo lépp wax la nga xam ne dépassé ngeen ko min sayin laa la moom lu mu fi sàbbilaay ci yoonu yàlla a fa def na fay ileekum ci yéen lu ngeen defee ci yoon yàlla def na leen ko fay wa antum te mbir moom yéen laa tus la moon a deful wàññi dara ca la mu leen war a moom sunu borom jëng nga waaye in jeng nañu ñoom ñi am ñoom ñooñu doon xeex ak yéen li salmi ci wut ak yéen jàmm bëgg a jàmm ak yéen faj naa na nga jeng laxaa jëm ca jàmm jooje wa tawakkal nga yokk ko sukkandiku alalaay ci yàlla inoon naka yàlla huwa moom asamiw mooy déggaa koon ba al alimu mooy xamaa ba wa in yuridoo ndeem ñoom nag ñoom ñooñu nga jàmmonte jàmmook ñoom suñu demee ba yàgg ñu nam an yax dawoo ko ci ñu wor la man daal jàmmoo yow ba yàgg ñu daal lal ay wor ci suuf ah, fa inna xasbaka fa inna asbaka naka doy na la sëkk allaahu yàlla ndax huwa moom yàlla àlla si mooy buur ba nga xañ ay yadaka moo la dëgëral bi nasri ci ndimbalam la wabil mu'miniina ak ci jullit ñi kon yàlla moom ba tey mi nga fi wa àlla fa te yàlla moom moo boole bay na xuluubihim ci seen diggante xoole ñoom law an faxta bu doon dangaa dépassé joxe maa fil àdd li nekk ci suuf jàmmaan mboole seen maa alafta mënoo boole mënoo tàppale bay na xuluubihim seen diggante xol walakin allah yàlla nag moom moom moomu di yàlla àllaxo moo mën a tàppale teyit moo tàppale baynam seen diggante ci kàttanam innahu naka moom yàlla azizun yàlla buur bu tedd la xakimun buur bu xereñ la aaya jooji wa in yuridoo ba ci innahu azizun xakim mag ñi daañ ko faral di bind di ubbi miim yi ci nekk fekk kër goo xam ne dañoo juuyoo wala dañoo àndul wala jëkkër ak jabar bu déggoowul wala doom ak baay bu déggoowul wala ndey ak doom bu déggoowul wala ñu dëkk ca kër ga daal déggoowuñu ñu boole leen ci miim yooyu yii def ko ca kër ga dana waral ñoom ñu déggoo nekk benn hmm. xam naa am na benn nit yàlla bu wax ni wa bi nabii aslamal faaruuxu summa bihi kaanal xuruju li naxwil masjid al xarami buñ ko sañoon dugal ko fi waaye naaj na ba tey nee naa la booy wax ak ñépp bul wax lépp fépp waaw na nabi eey yonent bi eey yow yonent bi xas bu ko doy na la sëkk allahu yàlla wa man ak doy na wa doy na ka nga xam ni wa doy na man képp ko an itabaaka topp na la minal ne ci jullit ñi ak ka topp ci ñi topp ci toppoon ci yonent bi ak ña topp ñi toppoon ci yonent bi ba suñ jëm yàlla tey képp koo xamante ni bii ni gëm nga yàlla rek yàlla moom doy na la sëkk taala mu ni yow yonent bi yàlla doy na la sëkk doy na képp koo xam ne tabaaka topp na la minal mu'miniina bokk ci jullit ñi yaa ayyuhan nabiyyu ee yow yonent bi xari di ñaaxal al mu'miniina jullit ñi alal xitaali ci xeex in yàkkun dafa def nekk na minkum ci yéen isroona ñaar fukk saabiroona ñu di way muñ yaxli boo daañu not mi atay ni ñaari téeméer ñu bokk ci yéefari gis nga li tax jullit ñi bu ñu daan xeex ak yéefar yi ñu bare lu ñu leen di duma ñoom yéefar yi jàpp nañ ni dekki amul léeg ñu dute ni am na wala amul bu amee ñoom ñu yàqu su amul bu ñu dee perte nañ jullit ñi nag bu ñuy daje ñoom dañoo gëm ni dekki am na suñ leen dumaa am ndam mu ëllëgee ñu dem àjjana su leen yéefari gañee rey leen ñu dem àjjana direct moo tax pas-pas yi duñ bokk du ñu bokk ba léegi ci day am in yàkkun minkum isroona saabiruna yàqli yaxliboo mi atayni way ni yàkkun ndeem dafa nekk minkum ci yéen mi atum téeméer yaxliboo di day not alfan junni mi na lësi ci gaañeen kafaroo weddi nañu lan moo tax bi àndoom bi sababu mooy sababu naka ñoom yéefari xaw mu nit lañ ñoo xam ne laayaf xawoon amuñu dégg-dégg alaa alaana léegi nag xafafa wayefal na laahu yàlla an kum ci yéen waa lima xam na ni an na do fan wala boog an na doo fan an na daa fan yépp baax na nak ak doye ah ci wàllu yaram fii kum nekk na ci yéen ak wàllu am am léeg-léeg fa in yàkkoon ndéem dafa nekk min kum ci yéen mi atum téeméer saabiratun yu muñ lool yaxli boo daa not mi atay ni ñaari téeméer ci ñoom wayn yàkku ndeem dafa nekk min kum ci yéen alfun junni yéen julli ni bu ngeen matee junni yaxli daa ñu not ñoom junni boobu alfay ni ñaari junni dana duma ñaari junni waaye nag loolu lépp day amee bi isnillaahi ci ndigalul sunu borom walla yàlla maa saabiriina ndimbalam toujours da koy aj ci ñi nga xam ni ñoo am ak muñ léegi nag ay ji nu jëm itam am na sababu nuzul xëy na du ñàkk subaa ñu dellu si waat ci tuuti door a dem ndax bu ngeen ma gisee nii xam naa ni ngeen xam ni kii moom jeexal na jëm <laughs> baal ma maakaana jaaduwul yellu li nabbi ñeel benn yonent an yàkkoon a nekk lëxoo ñeel ko asra ay ay ay prisonniers de guerre xataa yus xin na ba ñu lëmbe fil àddi ci suuf si ñoo xam ne tur yi doona dana namm ñun jullit ñi arada duniyaa kee euh, koomum àddina te wallaahu yàlla yuridu namm na ci yéen alaaxira alaaxira ndax ñoom dañoo jotu yonent bi da leen dañoo wax ndax dañuy jotu luy seen xalaat ñii ni nañ jotu ñii ni nañ leen rey yonent bi ànd ak ñi ni nañ leen jotu yàlla wàccee laay ji wallaahu yàlla azizun xakimun azizun ku not ci nguuram la xakimun ku xereñ la lawlaa kitaabun bu woon a dogal mi na laay bi tukkee ci yàlla sabaxa boo xam jiitu boo xam jiitu woon na ci daganal am koom ak itam prisonnier de guerre la masakum kon dana leen laal fi ma ca la ngeen ne jël ngeen ko ca jotu go ngeen jot ak ñom la ngeen ci jëlé kon dana leen ca japp da azabun bugul azimun bu rëy te metti fakku lo lek leen mi ma tukel ca leen la nga xani ni ma nga ngeen ko jëlé ko ci guerre bi halalan birum nekkam loola muy lu dagan tay bandul tey wa taxo ta ngeen ragal allah yalla ina la naka yalla khafurun jéggalaa kon la rahimun yarama kon la ya ayuha nabiyu ee yow yonent bi xul waxal liman ñeel ña nga xam ne fii nekk loxo minal asra ñu bokk ci jara-jara yi ñun yàlla mi ndeem xam na allaahu yàlla fii xulóobihim seen xol ya xayran ak ngëm akuk sell yuutiikum yàlla dana leen dolli xayran yiw bi maa ca la ne oxi sa jàppeef nes ko minkum ci yéen mu yaxfir te yàlla dana jéggal làkkum ñee leen seeni bàkkaar wallaahu yàlla xabuurun jéggalaa koon la yëri rahimun yërëmaa koon la wa in yuridoo ndeem nam nañu ñoom jara-jara yooyu jara-jara ci olof nee naa leen mooy prisonnier de guerre xiyaanatan ak wor te mooy feeñal wax ca kaw ni dañuy tuub bëgg ñu bàyyi leen jotoog ñoom ëllëg ñu delluwaat ci leneen ñooñ buñ ko defee defuñu ko kenn faxat xaanoo woroon nañu allah yàlla min xablu la jiitu badar fa am kana jàppandal jàppaat leen minhum ci ñoom jàppaat leen jàppandal lool te mooy bisu badar ba walaahu yàlla alimun xamaa kon la xakimun ku xereñ la ci li muy jëf inna lazina naka gaañ a nga xam ne gëm nañu wa haajiroo gàddaay wa jaahadoo ñu bi am waalim ci seen alal wa anfusim ak joxe seen bakkan fi sabilillahi ci yoonu yàlla muy kenn muy kenn ci gaa yi wala si na ak ña nga xam ne aaw ñoom gàddaayuñu waaye nag dimbali nañu yonente bi aaw tàpp nañu yonente bi wa nasaroo ñu dimbali ko mooy waa lansaar ñoom gàddaayuñu waaye dimbali nañu yonente jàppale nañ ko ñee nag dañoo gàddaay jihaat seen alal joxe seen bakkan ñooñu mooy ñu jóge woon màkk ànd yonente bi gàddaay ñii nga xam ne dimbali nañ yonent bi jàppale ko mooy ñi nga xam ni ñoom ñooy waa waa waa lamsaar ñoom la yonent bi fekkoon Medina ulaayka ku mu doon ci ñële gàddaay ànd ak bi ñëw ak ñi nga xam ni ñoo leen teral fii ak accueillir leen baadum ñenn ci ñoom awliya awliya u baadin ay ay ay gaay ci ñu ci des ci donnante ak dimbalante wala si na gaañ a nga xam ne amanoo gëm nañu gëm nañu de waaye nag wala mu haajiroo gàddaayuñu maa làkkum ñeelu leen min wilaayatihim ci seen méngoo googee ca dono googee min sayin ci tus ña nga xam ne ñoom gàddaayuñu woon danoo jekk ba yàgg nag euh, ñu ñëw lañ séq la ñu gàddaayuñ séq ak waa lansaar ci donnanteeg féetewut lu nekk loola ñoom fekku leen ci xattaa yu haajiroo ba ñu gàddaaye rek daay na nee nañu nag aaya boobu mujj na man suux mu ngeen teg wa ndem sàkk nañu ndimbal leen ndimbul ndem sàpp sàkku nañu seen ndimbal fi diini ci diini fa aleykum war na leen na su dimbali leen ñu su ñoom na nga xam ne gàddaayuñu waaye gëm nañu suñ leen woo xettal ci yéefar yi bëgg leen a sonal bëgg leen a xatal war ngeen leen a dimbali ilaa ala xawmin ndara nit ñoo xam ne bay na kum nekk na seen diggante waa bay na seen diggante ñoom misaaxun ak kóllëre su fekkee nag ña ñu bëgg ku leen dal ci seen kaw ñoom ñi nga xam ne jullit lañu te gàddaayuñu ñu bëgg ngeen dumale leen ñooñee dañoo séqoon ak yéen ak kóllëre ak jàppante bu jiitu woon lool ah su boobaa yéen sàmm leen kóllëre googu bu leen teg wallaahu yàlla basiirun ko xam la bi maa taamaloon ci li ngeen jëf wala si na gaañaani kafaroo weddi nañ ba aduhum ñenn ci ñoom awliyaa u addin ñooy méngoo ñenn ci dimbal ga ca donnante ga illaa tabaaloowu su fekkee jëfu leen loolu daggul maanaam julli ak julli ji ànduñu yéefari ngeen ànd embargo yéefari génn ci ñoom tàkkun kon dana nekk dana tàkk fitnatun fitna ju rëy fil àdd ci suusa wa ak ku yàqu kabirun gu réeréy te loolu mooy kéefar day am doole lool leer na leen wala si na gaañee xam ne amunoo gëm nañ ñuy kenn ñeneen wa haajaroo ñu gàddaay wa jaahadoo ñu jihaad fii sàbbilaay ci yoon yàlla muy kenn wala zina ak gaañe nga xam ne aaw tàpp nañu yonente bi xëcc ko teg ko ci seen bopp wa nasaroo ñu dimbali ko ulaayka yooyu la gaay hum ñoom dëgg-dëgg ñooñu rek almoominu ñooy way gëm ña xàqan ci dëgg-dëgg ngëm te ñooñu la hum ñeel na leen maafiratun njëggalu bàkkaar wa risqun ak wërsëg karimun wu tedd ci biir àjjana ñoom ñoo ko bokk wala si na gaañaane amanoo gëm nañu min baadu ca gannaaw ga wa haajaroo ñu gàddaay wa jaahadoo ñu jihaad maakum ànd ak yéen gannaaw ga lañu gàddaay jihaad xeex ànd ak yéen fa ulaayka yooyu la gaay minkum ñoo génn a ci yéen lañu bokk wa ulul arxaami ñi nga xam ni ñooy way famille ñi nga xam ne ñooy way jegeñaale nga xam ni ñoo bokk njuru bokk famille ba adum ñenn ci ñoom awlaa ñoo gën a yey bi ba at ci donn bi ba din ci ñu gàddaayoon ñëw dañ doon donnante waaye nag su fekkee faatu am na bi aaye miraas ñëwee léegi nag nee na famille léegi ñoo gën a yey nag jàmbur ñi fii kitaabillaahi ci téeréb sunu borom ba inna laa naka yàlla alimun xamaakoon la bi kulli shay'in ci lépp lu mën a doon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu am na laaj boo xam ni ñëwoon na ma koy fàtte mooy hmm? wasifa ki nga xam ne nee na day wasifa maanaam booy wasifa wala ngay julli avant fajar di jot man na nekk mën na nekk nga wasifa nga wasifa wala nga weer avant ñuy julli mën naa nekk fekkee julli dafa jege fekkee nak da nga ko bëgg a manam maanaam guddi jot nga bëgg a bokku tan ak guddi jot nga bëgg a sa wasi suba ak sa du suba su boobaa man na nek mais ngant la nga yaakaaro ni mo lay dab suba ba tax nga jiital wër de wasi su ñëwé ta ngant la jul am da ngay waat da ngay wër daat wasi foowaat bi ci desit moy ki limu laaj ni jiital sa wër manam ngay wër wala ngay wasi fa avant ngay julli man na am man na nek waye so doon da tay wala ngay wësoo ba waxtu julli gu jot da ngay dagg werdi wi wala bu dee wësu faa itam da nga koy dagg soo ko daggee ba pare nga julli ba pare àggale werdi wi werdaat force bu dee wësi faa itam nga dagg ko bu waxtu yu jotee da ngay dagg wësifa bi julli ba pare àggale wësifoo ba pare wësifa waat force beneen bi mooy yaakaar xam xaybu maanaam nit xam kañ ngay faatu ndax xaybu la dafa bokk ci xaybu wala bokkul ci xaybu waaw laaj la xaybu nee naa leen loo gis mu nekk ci nit ki xaybu rek loo gis mu nekk ci nit xay bu am na ku nekkul nekkul bu ci moom féeg ngoon ñoo ngi toog ni ban heure jot ñoo ngi ci deux heures moins six ñun deux heures moins rek xay bu la ci ñun ñun ñuy ngaa toog fii benn xale nit jëlu xeer ni ko till fii ci weer bi weer bi toj wàcc kooku kooku xay bu la xay bu la ci yow am na ñoo xam ne fii ak téeméeri at du xay bu ci ñoom ñoo xam ne fii ak ñuy loolu du xay bu ci ñoom yàlla xamal na leen at mi ñuy faatu mën leen a xamal bis bi ñuy faatu waaye lay nekk xay bu ci ñoom ban ban ban minute la ban seconde la loolu lañ mënta xam li la koy xamal dafa amoon benn nit boo xam ne dafa demoon ci benn nitu yàlla dama lay wax yàggul bi mu demee ci nitu yàlla bi léegi nitu yàlla bi jox ko aw tur ni ko nag tur wi ma la jox matul mais dana am ku la ko mottali waa ji dem Dakar bi mu demee Dakar nekk fa moom ma ko nettali da mu nekk fa nekk fa ba benn jour mu bëgg a dem ba bëgg a jàll ni tali bi rek am benn oto di ñëw ndeke ki ci wetam taxaw ci gis-gisu nit ñi ab dof la ci tasarufaati sunu borom dof bi jël benn xeer rek taxaw kenn xamul lu xew mu xaar benn oto ba oto bi di ñëw rek mu jël xeewi rek dóor ko ci pare-brise bi mu toj ñu naan luy lii luy lii boroom oto bi wàcc sàmbaar féq nit ñu téye ko dox bi ne ko ba nga laal ma rek ba nga laal ma ngay dof dof lu rek moom nee na waa ji day dof dof moom mi toj oto bi jàmbur ba nga laal ma laal ma seet nit ñi daal di ciy jàpp waajoor yu ki gudditu yàlla bi joxoon tur yàlla bi ne ko dana am ko la ko mottali moom fàtte woon na lool mu dégg coono rek mu ñëw ni waa ji kii kii kii wérul wérul léegi boroom oto bi ni moom day day day day waaji rek foo mu dóor ko mu ko loolu du ci am léegi dangay wax ñaata lan lay fay mu ne nàngam lan may fay ci pare-brise bi waa ji làmb poosam wàññi ko jox ko boroom oto bi ni ko demal mu dem dox bi daal jàpp ci loxob kooku fay xaalis bi ni ko kii dafa am dafa xamul lu xew ci biir dogali sunu boroom yi yàlla daf ma xamal ci biir ba tey ci biir dogal la daf maa xamal ne bu avancé woon ba ci kanam day def sox te da cay dee te heure baa ngi jege ci biir dogali sunu borom sunu borom xamal na ma loolu xamalaale na ma itam nit dafa bëgg yokk fanam ci waxin loolu lépp ci dogal la yokk géeg lépp ci dogal la bokk yow mi naan yàlla du natt fi randalaat natt gim natt mu war a dee foofu ak randal gim ko randal loolu lépp ci dogal bi la dox bi day pratiquer rek day nettali rek li ko yàlla wax daf bi ni ko bu demoon continuer woon ba fële day def soog te ca lay dee léegi nag pour ma bañ mu àgg foofu il faut ma tardeel ko loolu tax ma toj weer bi pour mu nekk fii expliquer di wax ba heure bi jàll ma bàyyi ko mu dem moom xamul lu tax ne ko yow nag at sàngam bi sàngam am na nit yàlla bu la joxoon tur sàngam nee na ma tiit di dox mu ne ma dala nee woon na la da nga gis ku la ko mottalee naa mu ne man mii la la doon wax ne ko nag nan dem ci jàkka ji nee na jenn jàkkaa ngi ci wetu tali bi ñu ànd dugg ci jàkka ji mu ne ko tur bi nii la la ko jox ak nii ak nii nee na ma ne waaw mu ne ma nii ci desoon ak lii ak lii léegi nag bu subaa na nga fi ñëw 9h pile bul tardé na nga fi ñëw dinaa la xaar mu ko baax na ko bul tardé de mu ne ya na ma dem xam nga ku la jaar ak yow fofu heure bu la joxee heure dang ko respecté ndax waji mom yak na bopp bi ba nopi dox bi yak na bopp bi 9 <laughs> h pile rek nee man 9 h sax avant muy jot man randu sina ba jege ndax baña tardé toog na 9 h di bëgg jot pile rek ma daal waxu aksi jaar fiñ jaar jéggi tali bi dugg ci jakkaji ñëw taseeg mel na jàkka ji dafa xam xaw a am tuuti ay nit ñu ne ma waaw yow sëñ bi yow yow la fi ki waa ji dugaloon démb di wax ak yow ci jàkka ji dox bi mu ne ah sa waa jooju moo gaañ moom lañ dogg li nii ba noppi ñu ngi ni tëral ko ci jàkka ji nga dof bi loolu la bëggoon mu fekke ko moo tax mbirum sumu borom loo naan amul danga naan xamoo ko loo naan amul danga naan xamoo ko loolu yonente bi def na ko ba tàyyi wax loo xam ne ci bu la bokk waaye kenn du ko méngale ak ñeneen ñi seen bu ndax yonente bi yemut ak kenn mais ba léegi nitu yàlla yi ñu ngi doxee noonu loolu dox bi def noonu ci bu la bokkoon wala lu woon ci xay mais mais waaw moo tax man xay bu boo gis am na ko andu bu ci moom kon loolu la andi laaj ngeen njëriñal astaghfirullah xam nga daal moom daal astaghfirullah daal mi ngi noonu astaghfirullah njëriñam kenn mënu koo wax xam naa ni ku ko yàlla di jaarale ci saw làmmiñ naroo bokk ci ñu nara lakk ëllëg te itam day day far ay bàkkaar astaghfirullah dafa laabir waaye nag dafa bare lu ci nekk loo xam ne leen ni ñemewuñ koo détaillé li ci charia wax daal moom xam naa ni di ko def baax na lool xam naa nag moom ñiy werd ak wasifa moom ak ñi werd woo dem na nga ca fekk boo demee tarixa xaadir am na ko nga dem tarixa tiijaan ña nga ca ñoom nga dem tarixa murit ña nga ca kon astafirullah te yonente bi moo wax ne tuubaa liman wajada fi saxifatihi wala boo wujida moo xam ba maa bañ a juum ci yax bi ndax xadis maa ngi ci jégglu moo pare daal ak xaala rek laay wax tuubaa liman wajada fi saxifatihi istighfaaran kasira yeneen bi nee na texe ñeel na képp koo xam ni fekk na ci téereem bu ëllëgee bu ko yàlla joxee téereem mu fekk ca astaghfirullah yu bari loolu daal texe la ci ko am lool salaatu ala nabi moom am na kuy laaj ay njariñam njariñu salaatu ala nabi xam naa ne comme xaw na ma sonn dañu yem ci astaghfirullah bu subaa insha allah ñu xoolaat ñu jéem tontu laaju salaatu ala bi boobu ak la xat jaakum bi ci topp moom itam laaj la ngeen baal nu àq asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu